li ci des nag mbokk yi mooy nu ñaan ñaanal suñu mbokki Palestine yi eh, suñuy mbokki jullit lañu te eh, ñu ngi leen di néewal doole néewal doole goo xam ni jéggi na dayo ñu ngi leen di rey ñu ngi leen di yàqal ñu ngi leen di lona ñu ngi leen koy def te loolu at yi yëpp la te kenn waxu ci dara te li nga xam ne mooy ay réew réewi jullit bu ñu maasee woon àndandoo ni tubaab yi àndandoo ndax tubaab yi ñoom ñëpp ñu ngi ci ñu ngi ci gannaaw Israël Israël mii di def lu bon li di tooñ tubaab yi yëpp dañ koo far ñoo koy jox joxe ngànnaay Amérique moo koy joxe ngànnaay ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi koy joxe ngànnaay ci Amérique moom nëbbu tuut dañu nekk ci gannaawam di ko joxe ngànnaay muy tooñ di rey suñu bokk jullit di rek tubaab bi yëpp doon benn kàddu àndandoon ñoom te tubaab yi nag amuñu dara lépp lu ñu am ci noonu ko jëlee Afrique gii ak ak ak ak ak ak bilaadul arab njëriñ yi nga xam ne moom lay tubaab yi di jël di ko jëriñoo mu dee di may doole lépp Afrique lay jëlee wala Occident ak yi kon nag nañu xam ni bu fekkoonte ne àndandoo gi tubaab yi àndandoo jullit yi àndandoo nañu ni kon lii ñuy lii ñuy def Palestine du du du am waaye maal asaf àndandoo wuñu dañoo tasaaroo kenn ku nekk nekk sa bopp ku ne sa bopp rek la ñor tubaab yi ñoom ñoom ñi nga xam ne àddinaa leen ñor ñoom àndandoo nañ bu leen neexee di tooñ di néewal doole nit te kenn mënu ci dara nun ne ni yàcc rek ginnaaw nag nun ñaan lan ci man nañu ñaanal suñu bokki Palestine yi te ñaanal suñu bopp ñaanal suñu réew mii te xam ne lay dal Palestine mën na noo dal ndax am na nañu noon yoo xam ni nii réew mi tàmbalee doxee neexu leen maa ngi leen ko fii wax di leen ko wax di leen ko di leen ko wax def leen ko ci seen xel xam leen ni nii réew mi tàmbalee soppi koo neexul tubaab yi neexu leen ndax ñoom ay mba ay ay ay cëfka lañ ñu jàppe woon di jël suñu alal di di war ci suñu kaw di nu noot bëgg ñu nu yeewu loolu ci la nekkoon nero yooyu ci la nekkoon a jekk dem nañ nag ba léegi gone yi màgg nañu xam ne la xew fitt tëcceeku nañu bëgg moom suñu bopp loolu nag neexu leen te na ngeen na ngeen bàyyi xel lépp lu ñu mën danañ ko ci def bu nu toogee rek na yàcc defe ne sotti na sottiwul de sottee gut nanu ñaan te jàpp nanu ñaan nanu ñaanal ñii nga xam ni ñoom lañ jox réew mi te jàpp ne mën nañ koo soppi nan leen ñaanal suñu borom aar leen nan leen ñaanal te di jàppale leen suñu borom aar leen te musal leen ba réew mi soppi ko waaye na ngeen xam ne noon yi taxaw nañu de te tey ji lañ gën a taxaw te it ruumandaat yaa ngi jóg ruumandaat yaa ngi jóg ruumandaat yaa ngi jóg bu yàggul rek dégg ngeen naar bu dëkk Mauritanie gii ab opposant la waaye opposant lu muy wax ñaare naar ba ma ngay wax jaxaran naan Sénégal dañ ñuy fontoo ndar noo ko moom risaatool noo ko moom teyit man bu ma jëlee réew mi danañ ko nangu ci force ci doolee ndar ndar ak risaatool te li ci gannaaw dex gi juróom fukki kilomètre ba fa ñuy wax tikkinti ci Sénégal la bokkoon si nga ko joxe woon nga xam ne dex gi boo demee ci ci ci ci ci ci ci eh, xarita xarita bi bu bu bu àdduna bi eh, naxaru Sénégal yi lañ ko tuddee naxaru Sénégal yi Sénégal la bokkoon si nga ko joxe man mii samay maam dagana ga seeni tool lépp mi ngi woon ci gannaaw dex lépp da bokk na ca naar ya léegi te ñëpp foofu lañ daan liggéey ci gannaaw dex ga léegi ñoom waxatuñu li nga xam ne Sénégal ko moom ñu jël ko léegi ñu ngi wax ne te loolu dafa am ñu koy def ci ñoom bëgg ñoo ruuxale ak ñoom bëgg ab geer tàkk bis bu fi xeex guerre tàkkee ñoom la ñuy jàppale dañ leen di jox ngànnaay ngir ñu néewalaat ñu doole ba nanguwaat noteel ga loolu nag ñoo xam ne ci bu ñu toog rek defe ne dara xewut mbir garaawite baa ngi soog a tàmbali mbir mi garaawul woon ndax sunu noonu ñaan la woon waaye léegi na na ngeen xam ne suñu noon a ngi ci te jóg nañu te rumandaat yaa ngi tàmbali nanu ñaan nag yal na yàlla feel seen doole am na ko ko fi waajoon ca ca cay at am na ko ko fi waajoon gemb leen ba nar dal Sénégal musiba ma dal ci kawam ca la doxee ñu faagaagal ko moom loolu moom defe naa bari nañu am nañu ko xam jàpp naa nit ñii bu ñu dee delluwut gannaaw loolu leen dina ndax Cheikh Abdoul Ahad nee na woon réew mii képp ko fab saw ay jële ko fi ci sa bopp la jëm ci sa kaw la jëm loolu nag nañ ko gëm tey ñaan tey jàpp nañ ñaan suñu borom jàmmal réew mi yal na yàlla dolli jàll jàmm réew mi yal na yàlla aar réew mi ñii nga xam ne ñoon lañ jox réew mi tey te ñu aw yoonu soppi ko yal na leen yàlla aar te musal leen yàlla leen yàlla tëbb kattan tëbb leen doole tëbb leen xam-xam tëbb leen alal ba ñu mën a sott sopp sotti réew mi ni nga xam ne nii lañ ko bëggee loolu moom kenn ku nekk war nga ko ñaan foo jullee nañu ñaan addu'a u salahul mu'min yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaan mooy nga daal jullit ñoom am na ñuy kënu waaye noonu am na ñuy ñaan ñaan addu'a u salahul mu'min nañuy ñaan nañuy ñaan bu ñu ñaanee suñu borom dana la dimbale yàlla nañu yàlla dimbale yawirullah